téeméer ci ay ndaw ñu leen di xaar ci salon bi ñu dibee jeunesse emploi et mobilité ren nag ci programme bi ñu nar a wutale ay xëy ndaw yooyee ministre bi ñu dénk wàllum jeunesse ak agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes ANPEJ ñoo ànd nar a xeex ñàkkum xëy mi te sottante xalaat wutal leen ay liggéey ci bile salon. loo xam ne suñ fi ñëwee tey li ci bees mooy dañuy am possibilité rencontre ay entreprises yoo xam ne ñun ñoo leen prospecté avant salon bi ba pare ñu ñu fi ñëw offrir ay emploi yu leer yoo xam ne ñoom ñoo koy jël jeunes yi moom ko. bu ñu sukkandikoo ci ministère bi yor wàllum jeunesse ñàkkum xëy wi ndaw yee ci gën a loru ngir xeex lu ni mel moom ak ANPEJ ci bile salon dañoo nar a jàppale gune yi ngir ku ci nekk am ci looy yëngu. ndax am na ay xale yu bëri yoo xam ne ba léegi am nañu ay problème formation am nañu ay problème emploi li ñu ci jox rek mooy réew mi nguur gi mu ngi taxaw tey la gën a taxaw ko démb te dina gën a taxawaat. pour gën a mun a solutionner problème bi ba ñu amul xëy mu dimbale leen gunge leen ba ñenn ñi mu recruter leen ñeneen ñi entreprise yi recruter leen parce nag économie bi mu ngi dox te ñoom itamit ñu ngi def ay jéego yu am solo loolu. salon jeunesse emploi et mobilité ñu nekk ci seen ñaareelu édition premier ministre bi moom ñëw teewee cérémonie d'ouverture bi salon bi ren mbébétam mooy jàppale ndaw yi ngir ñu am xëy ak yenn élèves yi ñu am formation bu gën ci ñoom loolee nag day tax ñu gën di jàppale gouvernement bi bi nga xam ni mu ngi indi ay jéego yu am solo ngir xeex ñàkkum xëy mi ci réew mi